alhamdulillahi masant yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla alhamdulillahi ma yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla wa baadu maa ngi taalifal maymuuna mañ saxiira waaye mag la moona mooy bint sayxinal xadiimi caat ma moo tax ba mboolem mag ña jox ko war ma mu boole mbóoti taaw ya ak yoy caat ya donn ca mbóot ya nekk tey baag mbir ya jàng nga jàngle nga wooteek màggal fii laylatil xadri yaa koy sellal weer wi nga wootee gën ci mboolem weer yi guddi ga moo faw xa mboolem guddi yi foo tudde laylatul xadar ci réew mi xel yépp dem ca soxna may fii saw mi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa salallahu ala sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baad kon mbokk julli yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a rafet muy nuyoo bi lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw nuyoo bi nag ñuy sant sunu borom moom mi nga xam ne nii moo ñu def ñu bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te alquran firndeel ko mooy kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkari euh, ginnaaw ci loolu bu ñu bokkee ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nekkul ne sunu njàmbarte la waaye sunu borom rek dogal sunu borom la loolu nag li ñu ci war en tant que jaam mooy ñu sant ko buñ ko santee tamit. ñu santaat ko ngir ne may nañu ñu fekkee weeru koor muy shahru ramadan muy weer wi gën ci weer yi te defaluñ suñu borom lu tax mu may ñu fekk ko waaye ci mbaaxam la ko may ñu fekk ko ginnaaw bi ñu ko fekkee nag ni ngeen ko xamee tey jii dañ fiy ñëw ngir waxtaane du jëm ci bis bu màgg boobu muy laylatul xadar ma laylatul xadar nag jamono joo xam ne nii dugg nañ ci weeru koor bis bu demee ba jub si euh, njabootug soxna may gi danañ taxawal ay waxtaan waxtaan yooyu nag ñu ngi koy defee ci kilifa kilifteefu lañ na bi nga xam ne ni mooy organiser màggal gi tey nag ñu ngi fi ak maam Cheikh Mbacke maam Cheikh Mbacke di doom Serigne Modou Mahfous muy kenn ci njaboot gi te njaboot googu muy njabootuk soxna may saa yu weeru kor duggee amatuñ benn yitte amatuñ benn yitteew lu dul waajtaay wi nga xam ne ni mooy guddug laylatul xadar gi nga xam ne nii soxna si daana ko taxawal waajtaay wi ñu koy waajtaan nag dafa am ay waxtaan yu ñu koy jiitalee waxtaan wi tey jii bokk ci waxtaan yi nga xam ne ni moom lañuy ñuy teertoo guddi googu guddi gu màgg googu nga xam ne genn guddi la ci guddi yi nga xam ne nii am nañ ginaaw ci loolu tey suñ maam Cheikh mi ngi ñu war a waxtaanal ci màggaayu guddig laylatul xadar ak njariñ yi ci nekk ak tamit maanaam soxna si naka la ko daa taxawale naka la ko daa dundale ci ndigalu sëriñ bu mag bu muy Cheikhuna Ahmad Bamba bu ñu waxee tamit ci naka la ko soxna si daan maggale naka la ko soxna si daan dundale danañ tamit danañu ñëwal tamit ci point bi am solo mooy yan enseignement lañ ci mën a tiire yan enseignement lañ ci mën a tiire ci guddik laylatul xadr ak màggaay wi ak ni ko soxna si doon màgg euh, ni ko soxna si doon taxawalee ginaaw ci loolu danañ ñëwal ci jëmmi soxna si dundam dundam ak jaar-jaaram ndaxte loolu defe naa lu am solo la ñu di ko def di ko fàttali ci saa yu ñu jëmee ci guddi gu màgg googu nit ñi mën cee jëriñ jële ay njëriñ nit ñi mën cee roye waaye tamit nit ñi mën cee xam soxna si naka la ko daa taxawalee ak naka la ko daa dundalee loolu daal mooy li nga xam ne nii mam maam Cheikh ñu ci dikkal incha allah rabbi ñu ñaan suñu borom di ko ñaanal tawfiq ci waxtaan wi nga xam ne ni moom la dugg kan suñu maam seex kàddu gaa ngi noonu bisimilah. bisimilah rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama tasliman Euh, ñoo ngi tàmbalee suñuy kàddu ni nga ko waxee rek ci sant suñ boroom mi euh, nga xamee ne moo ñu xéewale ñu fekke woon weer tedd wi daaw fekkewaat ko ren di ñaan mu may ñu ñu fekke ko ay déwén yu bare bare bari te nangul ñu jaamu yàlla yiñ ci def lépp di ziyaara suñ mbokk jullit yépp nag di leen ndokkeel ci bis bi di leen ndokkeel ci weeru tedd wii tey jiital ci ziar bi euh, alxalifa cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñ borom yàggal ko fi ba euh, lim naa la liggéeyal lislaam naal ko liggéeyal cheikhul xadim lépp mu ànd ko mu def ko te ànd ak moom euh, di ziare ñëpp nag di ziare ñépp di ñaan suñ boroom euh, nangu jaamu yàlla yépp euh, ni ko waxe rek ni ko waxe rek euh, waxtaan yi ñuy def moo dañ ko laytaale laylatul qadr nga xam ne soxna may mënatu mbàkke moo ko daan taxaw ñi laytaale ko ngir xam na ne bis bi day xat ba liñ ci waroon a def lépp du ci xaj moo tax ci xalaatu ak ci kilifteefu Cheikh Abdoul Ahad loolu tax ñi ñi tànn bis yii ngir di ci waxtaan ak di ci leeral jaar-jaar yi soxna may ak aw doxinam ngir nit ñi mën cee kon ñoo ngi lay delloo kàddu gi Cheikh Abdou bisimilah kon comme ni ko maam Cheikh waxee euh, waxtaan yi ñu ngi koy amal ci kilifteefu Cheikh Abdou mi nga xam ne moo jiite commission waaye ci ndigalu suñ Modou Mahfouz Mbacké ndaxte ku xam na ne dana baax loolu bu ñu lu mel ne guddig laylatul xadar ñu def ci ay waxtaan yoo xam ne dañuy fàttali dañuy fàttali guddi googu màggaayam waaye di fàttali tamit ni ko soxna si daan taxawale ak di fàttali tamit jëmmi soxna si taxawaayam ndaxte ponk yooyu noonu dafay nekk ay ponk yu am solo am solo goo xam ne nii nit ki dina ci mën a waaj te xam ne soxna si yitteem lépp lépp euh, màggal guddi gi la woon ndaxte dafa da cee amoon ndigal ñaare bi am am ndigal gëm ci am ndigal waaye mu xam tamit day wa guddi gi lan la ndaxte guddi gi alxuraanu karim da wax inna anzalnaahu fii laylatil qadri wa maa adraaka maa laylatul qadri maanaam alquran doo ko fekk mukk mu cité dara te loolu amut daraja wala amut maqaama wala amut signification wala amut li ñu naan représentation ci l'islam loolu lépp nag li ko waral mooy laylatul qadr dafa màgg màgg goo xam ne nii bu ko jaam xamoon rek dooy na sëkk ci bis boobu mu mu jox yitteem jëpp wala mu jël euh, temps bépp def ko ci loolu tax nag soxna May jëloon temps jëloon waxtoom jëloon yitteem lépp def ko ci guddi googu noonu muy guddi laylatul xadar ñun nag wax dëgg yàlla ñun tamit ñu fas yéene lay taaye waxtaan yii nii saa yu ñu demee ba jub si ko waxtaan ci def ci ay waxtaan yoo xam ne ni dana tax nit ki xam lan moo taxoon soxna May jox yitte guddi googu kon suñ maam Cheikh dama lay bàyyi nga dugg ak ñun ci thème bi. ah jërëjëf ah ni nga ko waxee rek laylatul moo ko taggal boppam ci alquran da cee ci aw saaru lëmm lépp mu ci wane màggaayam ak di ci wone ngëneelam mi ngi wax ne aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim inna anzalnaahu fi leylati alqadr leylatu alqadri xayru min alfi shahr tanazzalu almalaikatu wa ruuxu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xata matlaa alfajr Euh, saar woowu euh, ëmb na màggaayu laylatul qadar ak wàccuwaay wi nga xamee ne am na ko ci diine ndax euh, mën nañ cee jële ne moo gën a màgg ci guddi xayrun min alfi shahrin waaye itam ci la suñ borom wàcce alquran alkarim te ku ne xam ne wàcce waayu alquran ndax alquran mooy waxi suñ boroom waaye itam guddig Laylatul Qadar suñ boroom moo wax ne guddi guddigun barkeel la guddi guddigun barkeel la inna anzalnaahu fi laylatim mubaaraka waaye itam nee na ci guddi gi ci la ni ci la suñ borom di dogale eh, eh, wërsëgi jaam yi ak li ñuy dund ci at mi yëpp ci guddi gi la koy la koy la koy suñ borom di dogale fiiha yufraqu kullu amrin xakim ba tey alayhi salaatu wasalaam uh, wax na ne guddig laylatul qadr guddig njéggal li njéggal la ak far ay bàkkaar ci képp koo xamee ne daf ko taxawe te sàkku ci tuyaaba sàkku ci uh, ngërëmul suñ boroom man may yaqum laylatul qadri imaanan waxti ihtisaaban wufira lahu ma taqaddama min zambihi su euh, euh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xamee ne danga taxawe taxawee laylatul qadr te tekku ci ak ngëm yàlla ak sàkku tuyaaba nee na say bàkkaar eh, yi jiitu yépp suñ borom daf la koy faral euh, ba tey guddig laylatul qadr suñ borom euh, def cee euh, def cee ràññee jaamu yàlla maanaam jaamu yàlla euh, ci weer wépp la baax waaye nag guddi gi leelut xadar ci la gëne waaw ni ko waxe ni mu ko waxe xayru min alfi shahr waaye itam mbokk na ci ngëneelul bis bi suñ borom def ci wàcc malaaka yi wàcc malaaka yi Eh, ñuy feesal yërmaane eh, ak lu baax ci suuf si tanazzalul malaaikatu war ruuxu fiiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xataa matlail fajr kon bokk na ci ngeen Laylatul Qadr itam yiwu kese la jàmm kese la amut lor salaamun hiya xataa matlail fajr eh, yaakaar naa ci tur wi rekk war noon cee xame màggaayu laylatul qadr ndax euh, laylatul qadr mooy euh, guddi gi nga xamee ne euh, alqadr mooy loo xam ne dafa am dayo ci lislaam dafa dafa màgg ci lislaam nga xam ne suñ boroom yërëm gum yërëm nit ñi yërëm gum yërëm xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam looloo tax mu jagle leen ko ndax alayhi salaatu wasalaam wax na ne Euh, bokk na ci li tax euh, euh, laylatu xadr suñ boroom xéewalu ko nit ñi nee na dafa am góor goo xamee ne dafa bokkoon ci banu Israël kooku nekkoon jàmbaar di jaamu yàlla di xeex ci yoonu yàlla lu mat junniy weer nee na loolu nag bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam nettalee saxaaba yi loolu jaaxal leen jaaxal saxaaba yi nee na ci la suñ borom wàccee saaru inna an eh, saaru laylatul qadr nga xam ne eh, képp koo xamee ne dundal nga ko eh, te teg ko ci gëm yàlla ak sàkku tiyaaba yaag ku jaamu yàlla junniy weer yéen a yéen a yem ndax junniy weer mooy juróom-ñett fukki at ak lu topp qaala ibnu mas'ud radiallahu taala anhu anna nabiya salallahu alayhi wa sallam dakara rajulan min bani israila labisa silaaha fi sabilillahi alfa shahrin fa ajiba almuslimuuna min dalik fa nazalat inna anzalnaahu fi leylati alqadr wa ma adraka ma leylatu qadr leylatu qadr xayru min alfi shahr ba saar wi jeex kon yërëm goo xamee ne suñ borom yërëm na ko xeetu yonent bi ak gënale gum leen gënale loolu moo waral mu wàcce mu baaxeñu baaxañu laylatul qadr ah, ngëneel yooyu ci daje nag loolu moo tax ah, lislaam ah, soññee ci ñuy màggal bis bi waaye di ci góor góorlu ci ay jaamu yàlla waaye itam màggal weeru koor wépp nag ndax waa guddig laytu xadar ci biir weeru koor la la la nekk kon weeru koor wépp lan war a eh, lan war a góorgóorlu ci ay jaamu yàlla war cee góor góorgóorlu ci def lu baax waaye rawatina eh, guddig laylatul xadar ndax ku ne xam na ne weeru koor lépp lu ci jaam bi def suñ borom daf koy ful daf koy ful eh, ndax suñ borom moom buy jëflante ak ñun ci euh, sunuy ñaawteef maandoom lay jëfandikoo waaye buy jëflante ñun ci sunuy jaamu yàlla nga nee la muy lay jëfandikoo moo tax bu ñu ko tooñee euh, moom amul lu bon dañu koy delloo waaye bu ñu defee lu baax dañu koy fulal euh, ful googu nag nee na boo defee benn dana la ko fulal ba muy fukk léegi léegi mën na la ko fulal ba mat juróom-ñaar téeméer ni nga xamee ne noonu lay fule ku joxe joxe joxe boo joxe suñ borom def la koy fulal ba mat juróom-ñaar téeméer masalu ladina yunfiqoona amwaalahum fi sabilillahi ka masali habba ambatat sabaa sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu li may wallahu yudaa'ifu li waaye loolu ful googu nag mën naa dem ba du am fu muy yem nim koy defe ci weeru koor ndax alayhi salaatu wasalaam moo wax ne kullu xasanatin bi ashri ila sabamiati daafin eh, illa illa siyaam fa innahu lii wa ana ajzi bihi alayhi salaatu wasalaam nee na eh, eh, bépp rafet rafet maanaam bépp jëf ju baax suñ borom daf koy ful ba mat fukk waaye loolu mën naa dem ba mat juróom-ñaar téeméer ni ma ko waxee ci joxe nee na ba mu des koor nag nee koor moom maa ko moom man suñu borom kon dafa euh, seetee koor ci jaamu yàlla yëpp askane la ko boppam ne man maa ko moom maa koy fayal sama bopp waaw ah, kuy fay nag euh, kuy joxe ku nekk kem nam tabe rek lay joxe te suñ borom moom kuy tabe rek moo la ëpp tabe moo la gën a tabe ndax ci moom nga ko jële kon xam na ne euh, li muy fay weeru koor kenn xamul nu mu toll buñ waxee weeru kon nag rawatina laylatul qadr loolu moo taxoon euh, euh, nit ñu baax ñi daan ci góor góorlu ñu baax ñi daan ci góorgóorlu ci ay jaamu yàlla ak jëf yu rafet euh, ak lépp loo xamee ne suñ borom def ko santaane te ka jiitu ci ñu baax ñooñu nag mooy alayhi salaatu wasalaam mooy alayhi salaatu wasalaam moo tax rod na ci xadis ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa ajwada naasi wa kaana ajwadu maa yakuunu fi ramadaan wa xiinama suila alayhi salaatu salaam ayu sadaqati afdal qaala sadaqatun fi ramadaan euh, suñ borom euh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam euh, ñëw na ci xadis ne moo gënoon a tabe ci nit ñëpp ndax suñ borom moo ko tàggal boppam ci ay jikko yu rafet te jikko yu rafet ah, jàpp naa ne dara jiitu ca tabe moo taxoon moo gënoon a tabe ci nit ñi waaye nag euh, fi mu daan gën a tabee jamono yim daan gën a tabee mooy weeru koor euh, laaj nañ ko itam ne ko joxe walla saraxe euh, lan moo ci gën mu ne saraxe ci weeru koor kon loolu lépp ay junj la wane ne weeru koor rawatina laylatul qadar dañ cee war a góorgóorlu bu baax a baax ci ay lépp loo xamee ne dañ ko daan def ci ay jaamu yàlla bu ñëwee ñu ful ko yokk ko ndax euh, ni ni mu saxee ci xadis bi ma jàng léegi ab traite la boo xam ne lépp loo ci def dala koy fulal te ful googu mën naa euh, bañ am fu mu yem innamaa fas saabiruuna ajrahum bi xeyri xisaab suñ boroom nee na ñi nga xamee ne ñooy muñkat yi euh, bu ma leen di fay euh, dama la koy dama koy jóor kenn xam num toll te koor nag mooy mooy chehru sabr mooy chehru sabr euh, ali sa cheikhul nag moom it dafa doon noon yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon noon yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo taxoon mu daan yittewoo weeru koor rawatina laylatul qadr dafa jàppewoon weeru koor mu nekk xaritam waaye nekk soppeem nee def daf koo sopp eh, te dara warul ko dul jëmmi weeru koor ah loolu li ciy firnde mooy eh, bi mu nekkee ci tukki bi tukki bi géej gi eh, ba weeru koor wa teroo ci ci ci am hay sachi mooy mil trois cent quinze hijriye mooy ba mu fa amee ñetti at rek mooy ñetteelu euh, kooram ci Maayomba dafa bind ak di ca di ca tatakal weeru koor euh, di ko ca euh, tagg ak di feeñal mbégteem ci weer wi te bokk na ci la mu wax rek yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qirat taati wa sadadi muazzaman inda rabbi la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi wala rachadi cheikhul xadim nee na yow mi nga xamee ne yaa gën ci gan ñi weeru koor nee mooy gan gi gën ci gan ñépp yow mi nga xamee ne yaa andi mbégte ak xéewal ndax weeru koor ku ne xam ne ne weeru xéewal la ndax mooy weer wi nii ubbi bunti àjjana yi waaye di tëj bunt sawara yi waaye di jéng seytaane te loolu xadis moo ko wax moo tax man moo tax eh, cheikhul xadim ne di ko tatagal di ko dalal jàmm ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adati nee na ko yow yaay gan gi nga xamee ne eh, doo doo doo doo doo jug ci duñu ñëwal di ñu ziyaare saa su nekk waaye nag lin lay terale mooy ay topp yàlla akum njub kon euh, li gën ci lun terale weeru koor mooy jaamu yàlla loolu nag war nañ cee bàyyi xel bu baax ndax euh, sama kalaas gii daanaka mën na na wax ne euh, ñu ci bari weeru koor weeru lekk ak naan lañ ko def ndax bu guddi gi ñëwee leen waroon a lekk ci bis bi yëpp dañ koy bëgg a boole Eh, ci guddi gi ah te loolu nag du weeru koor weeru koor moom weeru jaamu yàlla la waaw ah, dañ cee war a tàmmal suñ bopp eh, ab xiif eh, ak doyloo suñ boroom ndax a asamat mooy mooy ki nga xamee ne dafa doyloo wolif ñëpp mooy ki nga xamee ne ñëpp am ci moom soxla te amul ci kenn soxla jikkoom jooju nag dañ ko war a faggu ci weeru koor waaw dañ ko war a fàggu ci weeru koor war koo roy ndax jikki suñ borom yi dañ ko war a roy suñ borom ku la gën a ci loolu la ñuy jegee suñ borom ku la ëpp lay jikku ci moom rek moo la ko gën a jege kon euh, weeru koor dañuy tàggat ci ragal yàlla ah dañuy tàggat ci ragal yàlla euh, tàggat ñu ci euh, melew suñu borom yi ñu melewoo ko suñ kemte lay kàttan donte nag doomu aadama mu doomu aadama la mun ta génn doomu aadama waaye nag Euh, lu mu gën a jege suñ borom lu mu gën a nuru suñ borom ci ay ci ay melo ci lay gën a mate ndax ak man moom suñ borom rek moo ko def nee na muazzaman inda rabbi la sharika lahu nee na mooy gan gi nga xamee ne suñ borom daf koo màggal suñ borom mi nga xamee ne kenn la amut mooy càppaandaw ci nguuram gi amut kenn koo xamee ne bokk naa ak moom dara waaye itam euh, ñi nga xamee ne ñoo ragal yàlla ak ñi nga xamee ne ñoo am xam-xam ak ñi nga xamee ne ñoo jug ñoom it dañuy màggal weeru koor kon loolu mën nañu wax ne euh, as lëf la ci màggaayu weeru kor ak fi ko lislaam teg waaw sëriñ maam te fa tabaarakallaa li may fàttali rek mooy mbokk yi ñu suivre ci internet bi ak ci réseaux sociaux yi kon ñu ngi fii ci waxtaan yi nga xam ne ni ñoo ngi koy waajalee guddi gu màgg googu muy guddi Laylatul Qadr tey ñu ànd ak suñu maam Cheikh moom sëñ Modou Mahfous Mbacké waaw wax dëgg yàlla muqaddima bi nga indi ci màggaayu laylatul qadr ak fi mu nekk muy ci biir koor gi ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññee ak ni ko sunu yaakaar ju baax ji Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba eh, tarxibe maanaam ni mu ko eh, ni mu ko teeroo ak lim ci wax lépp point yu am solo la ndaxte junj nga ne laylatul qadr moom képp ku ko taxawal ca nam na nga xam ne suñu borom dana la jéggal say bakkaar yu njëkk ya ak yu mujj ya te loolu defe naa jàmm bi bu ko déggee loolu force la ci moom mooy occasion la ci bu guddi laylatul xadr ñëwee lépp lu mu nekkoon wala lépp loo xam ne nii jàppoon na ko mu bàyyi ko doxal ko def ko na ko lislaam santaane te soxna si daan ko doxalee noonu noonu te loolu lu am solo la lu jar a bàyyi xel la kon mbokk auditeurs yi ñaareel bi mooy wax nga tamit ci yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu tabee ni mu tabee waaye weeru koor ci la gënoon a nekk ko tabe ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran daf ñuy wax ne laqad kaana fi rasulillahi uswatun hasana maanaam dee leen roy ci yonent bi sallallahu alayhi comme mooy sunu rasul mooy sunu roy royukaay te moom bu koor teewee donte na tabe na waaye ci liy gën a tabe kon loolu soññ la ci ñun ñu gën a tabe gën a mën a joxe gën a mën a def lépp loo xam ne ni lu baax la lépp loo xam ne ni lislaam santaane na ko kon point yi bëri na lool suñu maam Cheikh waaye dama njëkkalante ak waxtaan ak ak waxtu yi ndaxte ñu ngi jëmaat beneen ponk ponk bi mooy guddig laylatul xadar gi ñu jëm nii naka la ko soxna si daan taxawale ndaxte ku ne xam na ne Touba gi wala muy Sénégal ci boppam boo nee laylatul xadar rek xel yëpp dañuy dem ci soxna si soxna si amutoon benn yitte bu dut guddi googu noonu ñëpp xamoon nañ ko ci loolu moom soxna si. naka la daa teertoo leeratul xadar maanaam bu koor gi duggee naka la ko daa teertoo ak leeratul xadar. ah jërëjëf jërëjëf laaj lu am solo laaj nga lu am solo ah, leeratul xadar ah, bala ñoo ñëw ci ni ko soxna si doon dundale ah, dañuy wax rek li li taxoon soxna si tànn ko ba koy dundal li taxoon mu tànn ko mooy. Euh, bëgg ngërëmul sëriñ Touba dàkk ngërëmul euh, sëriñ Touba looloo taxoon mu tànn bis bi ak bëgg liggéeyal sëriñ Touba mu tànn li nga xamee ne moom la sëriñ Touba gën a bëgg euh, ngir man ko caa liggéeyal loolu moo waral mu tànn leedu xaddar te waa Euh, leelu xadar ak weeru koor ni ko sëriñ Touba euh, fi mu ko tegoon ak lim ci wax am na lu ma ci junj junj léegi am na lu ma ci junj léegi fi mu tegoon weeru koor waaye itam fi mu tegoon alquran ndax euh, alxuraan moo nekkoon lépp sëriñ Touba kitaabu ko diini wa huwa xilli wa mu unnisi Cheikhul Xadim nee na mi ngi wax ne euh, sab téere yow suñ borom nee na mooy li nga xamee ne moom laay topp waaye mooy sama wéttal nee na mooy sama wéttal nee itam lépp lu mu am ci alxuraan la ko ame euh, loolu moo tax euh, Cheikhul Khadim loolu moo tax soxna Maymunatu Mbàkke tànn weeru koor tànn laylul qadr ak alquran eh, di ci liggéeyal Serigne Touba. bi mu namee liggéeyal eh, Serigne Touba ci bisub Laylatul Qadr eh, dafa dem ci Cheikh Mouhamadul faadal ñaan ko ci ndigal ndax ku ne xam na ne ndigal moom moo jiitu ay jëf ndigal moo jiitu ay jëf laa tafaalu shay'an bi ghayri idni fal idnu shartun fi qabuli sha'ni Euh, Cheikhul Xadim nee na bu leen def dara te tegu leen ko ci ndigal ndax loolu mooy tax ñi nangu seeni jëf ndax jëf moom jëf ju baax al amalu saalix euh, faw ñaar da ciy daje suñ borom soog koy nangu euh, ana ana ana ana ñaar yooyu mooy la ci jiitu mooy nga teg ko ci ndigal maanaam teg ko ci sunna ah loolu moo ci jiitu waaye la ca topp mooy nga sellal ko ah, def ko ngir jëmmi suñ borom dong kon ñaari yooyu mooy tax suñ borom nangu ko loolu moo tax ah, soxna may mudut Mbàkke bi mu ma liggéeyal Cheikhul Khadim ah, dafa dem ci ki nga xamee ne moo fa teewaloon moo fa nekkaloon Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Fadal en 1949 mu laaj ko ci ndigal ba dafa togg ñaari ginaar yóbbul ko laaj ko ci ndigal euh, Cheikh Mouhamadul Fadal euh, jox ko ci ndigal ba pare euh, del ko ci wane na ko da nga dem bare ci ay gileem dañ dañ ci dem da dem ba def ci ay teraanga yoo xam ne kenn du xam ni mu toll te loolu ñi fekke woon jamono yu soxna si teg nañ ci seen bët loolu moo taxoon mu mu mu tàmbali ko daarul moxti la ko daan defe def na ko fa ay at yu bari ginnaaw bi mu toxal ko di ko defee daar wahab ndax daarul wahab itam mooy dëkk bi nga xamee ne euh, Cheikh Sidil Muxtaar de Cheikh Awa Balla nga xamee ne euh, moom la suñ borom boole woon ak euh, soxna May moo ko santoon ba pare dénk ko soxna si nga xam ne lépp lu fa am rek ci barkeb soxna si lan ko amee soxna si def na defe na fa laytu xadar ay at yu bari ginnaaw bi mu toxale ko Touba ci ndigalul Euh, Cheikh Abdoul Ahad euh, euh, soxna si nag dam daan màggale leelatul xadar ci ay jaamu yàlla rek ni nga xamee ne suñ boroom santaane ni mu santaane jaamu yàlla ci guddi gi ci lool rek la ko soxna si daan dundale ci jàngul alquran ndax weer wi moom weeru alquran la ci lépp lañ war a góorgóorlu waaye nag rawatina ci alquran ndax ali salaatu wa salaam moo tax ali salaatu wa salaam euh, bu weer koor masaan ñëw euh, jibril da ñëw euh, di ko di ko di ko nafar alxuraan di ko di ko jàngalante ak moom jibril hmm? kon soxna may lim li jiitu ci lim daan màggale bis bi mooy jàngool alquran ah, daari kaamil yi nekk ci réew mi yépp ah la daan yónnee ah daan du yem ci yónnee ba da leen da leen daan jox ah, xaalis boo xamee ne da ko daan ñaqal boppam am na tool boo xamee ne toolub Laylatul du la ko tudde ah, daaru waxaab tool boobu lépp loo xamee ne ah, daan na ci jóge da ko daan def ci ay enveloppe séddale ko daare alxuraan yi nekk ci réew mi rawatina ñu nekk biir Touba Euh, ak dëkk yi nga xamee ne ñoo aju ci Touba mooy daarul Moxti daarul euh, euh, Mannaan daarul Salaam ak ci réew mi yëpp nag te loolu yàlla dimbale na ne njabootam ndono loolu ñu ngi koy sàmm bu baax waaye itam yemutoon ci loolu dafa daan def ay berne ay berne daan daan ko yóbbu ci daaray alxuraan yi képp koo xamee ne jox na la barkeelu ci ci bis bi bu bis bi ñëwee daf lay daf lay jox ay ndog daari alxuraan yëpp daari alxuraan yëpp la daan eh, eh, jox ay ndog alxuraan jooju mën na wax ne eh, lin ci jàng ci bisug Laylatul Qadr ah néewaa na ñuy dégg ñuy wàcc ay kaamil yu toll noonu ak te ji teraanga ji nga xamee ne moom la daan moom la daan jox jàngkat yi moom it wax dëgg yàlla waxuma ne amul de waaye ne waa nañu dégg euh, kuy joxe teraanga ju tol noonu euh, bu ma bu ma bu ma juumut daaw rek euh, liñ jote wàcc ci ay kaamil man na huit cent huit mille cent quarante kaamil te loolu lépp soxna si daan wax naan bun ko wàccee nañ koy def addee Cheikhul Khadim kon loolu rek yaakaar naa jëlale naa réew mi waaye àdduna bi xaj nañ ci ah, ah, kon ah, soxna si dafa doon dàkk bëgg-bëggu sëriñ Touba ndax sëriñ Touba mu alxuraan moo nekkoon léppam ne moo nekkoon lekk léppam nee na sell gim sell ak daraaje jim am ci alxuraan la ko suñ borom maye loolu moo taxoon nag mu dàkk mu jël alxuraan waaye jël leelul xadar ndax suñ cheikhul xadim itam ku ne xam na ne euh, def na xasida goo xamee ne day ñaan ci barkeb laylatul xadar euh, di ci ñaan suñ borom ay xéewal waaye itam weeru koor itam euh, fi ko suñ tubaa tekkoon soxna si itam dàkk ko di ci liggéeyal suñ tubaa xanaa ba li may jeexale rek mooy ci nu mu ko daan màggale mooy dajale nit ñi di leen teral te daan da ko da ko daan woote moo ko daan wooteel boppam dajale ci mbokk yépp waaye itam dajale ci murid yëpp waaye dajale ci eh, jullit yépp fu nekk waaye jóge fa eh, di leen teral di leen berndeel ci seen ruux ak seen jëm eh, daan na ci rey lu bare bare bare bare ci baa sax rey nañ ko ci waaw ah, te loolu dan mën nan dan mën nañ ko sant sëñ Fallou ndax moo ko ko dégaloon moo ko ko moo ko ko euh, digoon ndax waxoon na ko ne dana àgg foo xamee ne dana euh, raw sa njort loolu nag yàlla dogal na lam ci doon def njabootam gi nga xamee ne ñoo fi nekkal di Cheikh Mouhamadou Mahfouz ak njabootam yi euh, ñi ngi lépp lu mu ci daan def rek ñu ngi def def na lu ko ëpp soxna baal yàlla na ko yàlla yokku leer ak suñ Cheikhu naa ak njaboot yi wàcc yëpp rek fa tabaarakallaahu suñ maam Cheikh point yi bëri na xëy na waxtu wi lañ njëkkalanteel comme waaye point yi bëri na te waxtaan bi am na solo trop li nga fi suñu li nga fi souligné euh, téléspectateurs yi nga xam ne nii ñu ngi ñuy topp ci àdduna bi à Sénégal ak extérieur danañ xam soxna si naka la daa taxawalee màggal gi surtout ñi nga xam ne nii euh, euh, fekkuñ fi soxna si waaye tamit dana baax ñu xam ne ginnaaw soxna si njabootam gi ñu ngi koy taxawee Euh, moo tax waxtaan yi mel ni ñu di ko amal ndaxte su ñu nga fi historique maanaam laylatul xadar na kañ la commencé 1949 ci xilaaf ak sëñ Mahamadul Fadal ci la commencé ba Sëriñ Fallu wax ko ci ay mbir yoo xam ne ni tey jii ñun fekke nañ ko loolu nag ñu ngi koy sant suñu borom waaye euh, souligné nga tamit ne maanaam defe nañ ko daaru Muxti defe nañ ko daaru Wahab waaye defe na soxna si defe na ko daaru ti defe na ko daaru Wahab waaye defe na ko tuubaa loolu lépp tul lu am solo la nit ki di ko xam téléspectateur yi loolu lépp am na ci ñoo xam ne ni xam naa duñ ko xamoon ñaareel bi mooy solo souligné nga ay points yu am solo muy naka la ko soxna si daan euh, dundale ci jàng alquran ci santaane tamit ci barab yi nga xam ne nii fii la ñuy jàngee alquran mu mel ne ay daare kaamil ay ay ay daara yi nga xam ne nii fa la ñuy jàngee mu di fa jàngale ab lim ba noppi nag muy yëkkati alalam di leen jox ngir ñu gën a sawar ci njàng mi ñaareel mooy dajale mbokkam yëpp nga xam ne ñoo na bokkal Serigne Touba ak taalibe yi ba noppi di leen eh, teral te loolu xam nga ne dafa bokk ci li lislaam santaane mooy joxe ñam dafa bokk ci loo xam ne lislaam da ko santaane am na ñu ne sax ci lislaam joxe ñam mooy loo xam ne nii mëneesu loo xam nan la ci nan la ci suñu borom di fay maanaam mënuñoo wax ne lii la temps la déedéet maanaam eh, adhaaf la adhaaf yoo xam ne ken kenn xamul lu mu doon te loolu am am solo la kon dañuy ñëw ci dernier point bi njëkkalante ak waxtaan wi njëkkalante ak eh, kii bi temps bi Euh, suñ maam Cheikh boo ma doon wax tey ci 2 minutes wala 3 minutes kan mooy soxna si pour téléspectateurs yi mën a xam kan mooy soxna si ci ci tënk. ah jërëjëf euh, laaj bu am solo la euh, te naqaree tontu ci ay waxtu. Mm. waaye mën na na wax nag nag buñ ko bëggee gàttal. Euh, soxna si euh, doy na sëkk rek ne doom Sëriñ Tuubaa la loolu rek doy na sëkk ci ci ci ci ci melal waaye euh, soxna si mënoon wax ne dafa jaayoon ak njuréelam jëndi ko ak taalibe kon buñ bëggee gàttal kan mooy soxna si soxna si taalibe bi Sëriñ Tuubaa bu dëggaloon ak taalibeem la woon ku soppoon Serigne Touba la koo xam ne daana wax naan euh, lépp lu mu am ci bëgg Serigne Touba la ko jële nee na amutoon dara amutoon dara lu dul euh, alalam moo nekkoon bëgg sëriñ Touba ak liggéeyal ko kon euh, taalibe boo xamee ne daf daan dund ak taalibeem la bu nu waxee ak bu nu waxee ak taalibe nag. ni ko euh, Cheikh Mouhamadul Muntaxa daan waxe rek euh, la jiitu mooy mu wàccoog lislaam mu wàccoo ak lislaam euh, santaane yi lislaam yëpp mu def ca kamtalaay kàttan te tere yëpp mu moytu ko waaye la ci yokk nag mooy mu bëgg sëriñ Touba mooy mu bëgg sëriñ Touba innal murida laa yuridu abada gayra rida rahmaani xaysu qasada Serigne Touba nee na am mooy ki nga xamee ne ngërëmul suñ borom rek lay dàkk ci lépp moom lay dàkk ci lépp ci ay jëfam ak i waxam ah, ak i pas-pasam ak léppam daal waaw kon ci gàttal mën noonu wax ne ah, ah, soxna may mënatu Mbàkke muridatun saadiqa waaw muridatun saadiqa moom la woon waaw fa tabarakallahu kon téléspectateurs yi agsi nañ ci cëppaandaw gu waxtaan wi ndaxte suñ maam Cheikh wax nga lu am solo ndaxte am murid rek moo am solo dafa jaay ak njureelam jëndi ko ak taalibe te loolu ket mooy li nga xam ne nii mooy li am ak fay ndaxte ak taalibe rek moo am solo kon euh, téléspectateurs yi yéen ñu ñu siifar fii ci Sénégal ak ci bitim réew waxtaan waa ngi noonu soxna May mooy ngi noonu laylatul xadar lañ jub si moo tax waxtaan yi ñu di ko lay taalee guddi gu màgg googu guddi googu nga xam ne ni soxna si dafa bàyyi woon léppam ngir màggaayam ak ndigal lam ca amoon ca ay kilifaam tàmbalee ko ci Cheikh Mahamadul Fadal ak naal yam ko ca waxoon te tey jii ñun ñu fekke ko kon ñu ngi sant suñu borom di sant di dellu sant ñaareel bi mooy ñu ngi leen di jox dégg dije dox daje ci ay yeneen waxtaan yoo xam ne ni dana amaat ndaxte xam nga ne moom saa yu guddi gi jubee rek waxtaan yi day bëri ndax ñu wane njariñul euh, guddi gi ba noppi wax wax tamit ni ko soxna si daan taxawalee ak yu demee noonu kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox sëñ bi mu jox ko benn euh, kàddu rek kàddu tàggatoo rek kàddu tàggatoo lan lay doon sëñ bi. waaw jërëjëf jërëjëf xam naa euh, liñ bëggoon a jeexal rek te mooy lu am solo. mooy njàng njàng enseignement bi ñu mën a bi nu war a tiiree ci dunduk soxna ma soxna si te loolu yaakaar naa moo moo nekkoon point bi bi waroon a mujj sax waaw ana yenn leçon la ñu war a eh, jële ci dunduk soxna si waaw yaakaar naa leçon ba ci jiitu mooy eh, Pastef bëgg bëgg sëriñ Touba waaw soxna si dafa nekkoon koo xamee ne ku jeexoon tàkk ci Serigne Touba la waaw nee na bëgg gi bëgg sëriñ Touba lépp lu mu am moo ko jox kon loolu war na ko ci jànge euh, bëgg sunub sëriñ ndax euh, bu delloo ci alxuraan dañuy dañuy xam ne bëgg yàlla moom farata la qul in kaana abaakum wa abnaakum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha wa tijaratun taxshawna kasaadaha wa masakinu tarrawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasuli suñ borom dafa teg euh, euh, bànneexi àdduna lépp loo xamee ne bànneex la ci àdduna rek daf ko teg ci benn balance teg boppam ci balance ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne leen na ngeen tànn ba xam ñaari ñi lan moo leen gënal ndax ko nekk bëgg nga sëy waajur bëgg ngay doom bëgg nga alal bëgg nga ay dëkkuwaay waaye yooyu nag ñoog yàlla lan moo la ci gënal nee na képp koo xamee ne Euh, jël nga jël nga yooyu mbirum àdduna moom yi ak matériel mu gënal la yàlla na nga xam ne euh, da nga ko rëccu kon bëgg yàlla farata la yàlla daf la war a gënal lépp na nam lay gënale lépp mooy lam digal lam la sant bu safaanoog say bëgg-bëgg ak bu safaanoog mbirum àdduna euh, nga bàyyi mbirum àdduna jëfe lam la bëgg foofu ku nekk foofu rek nanga xam ne yàlla la gënal lépp Euh, waaye bëgg yàlla nag mun yoon wañu cay àggale mooy ñi bëgg yonent bi ak ñi fi wóotu yonent bi loolu moo ñi moo ñuy mën a may ñi bëgg yàlla loolu moo waraloon euh, euh, saydatu maymuna bëggoon cheikhul xadim ndax xam na ne cheikhul xadim mooy ki doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam te lan mooy murit murit mooy mooy mooy mooy mooy ci bëgg loolu rek mooy murit al murit muridullaahi mooy ci bëgg yàlla ah kon euh, pësteef ci sëriñ bi foofu la la la la ni rawantee Cheikhul Xadim ne ni sifaatu sadiqil muridi bi ixtisaar nazamtuhu nazamtuha euh, euh, arbaatu nazamtuha xaw xaw faxtiraar asidqu fi mahabbati cheikh abad su mam tisaali amrihi xaysu warat wa tarku li mutlaqan walaw bi naa li fi ma qad rawaw euh, wa maahu salbul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaa hadi sifaat min al muridina fa yudriku siqaat hmm? nee na melow melow melow melow ab taalibe mu ne ñeent la waaye la ca jiitu nag mooy dëggu ci bëgg sëriñ Touba kon war na roy ci sëriñ soxna si bëgg sunub sëriñ ndax mooy tax ñu mën a àgg ci bëgg yàlla nga xam ne mooy euh, mooy jëmukaay ba waaye li ma enseignement yi mën a tëre ci euh, dunduk soxna si mooy jëfe ndigal ak bàyyi tere ndax bis bi li mu koy bëgg bëgg bëgg euh, bi mu ko bëggee màggal dafa dem laaj ndigal Cheikh Mouhamadul Fadal ba mu jox ko ci ndigal mu soog ko ci moo soog koy jëfe kon murit ndigal lépp lu muy def jël na naa ndigalu lislaam yi waaye Eh, même mbirum àdduna rek lépp lu muy dugg dafa daf cee war a diisoog ki nga xamee ne mooy ab sëriñam laaj ko ci ndigal ndax eh, lépp loo xamee ne da ko jëfe eh, teg ko ci ndigal bokkut ak loo jëfe te tegoo ko ci ak ndigal loolu moo tax Cheikhul Xadim ne wa in saada al maqduru aw saaqaka al muna ila cheikh xaqin fi lxaqiqati baariu fi hawaahu wattabi li muraadihi wa daa kulla ma min qabl kunta tusaanihu wakun an wakun andahu kalmayti anda mugassilin yuqallibuhu ma shaahu muta mutaawi Cheikhul Xadim nee na bu yàlla dogalee nga am uh, sëriñ bu mat sëriñ hmm? sëriñ bu mat sëriñ uh, Cheikh uh, Cheikh Cheikhul Xaqiqa nee na bu bu la ko yàlla joxee bu la ko yàlla xéewalee nee na na topp bëgg-bëggam topp li bëgg topp ay ndigalam te bàyyi lépp loo xamee ne daa nga ko def te mu aju ci sa euh, bànneex bopp wala sa bëgg bëgg bopp nee na na mel ne euh, ab néew bu nekk ci loxoy ka koy sang kon ne xam ne ne néew bu ñuy sang moom euh, du am lu muy bañ walla wala lu muy bëgg fan ko jëmale rek la jëm nee na képp ku am ko képp ku am sëriñ bu mat sëriñ nanga mel noonu dellu wax ne alxayru fi maxtaarahul muxtaaru laa fi ladi nufusukum taxtaaru nee na eh, li baax dëgg dëgg dëgg mooy li ñu yonente bi aleyhi salaatu wasalaam tànnal waaye nekkul lu ñu tànnal suñu bopp kon ah, li mën a jël ci eh, eh, dunduk soxna si mooy jëfe ndigal bàyyi tere murit àggoon murit buñ daan am am am am am gan sax euh, dañ daan bàyyeeg sëriñ bi mu xool turam koy jox ku ci ku ci mag ñi seen doom yëpp suñ suñ mooy joxe seenu tur kon ñoom amuy woon seen bopp dara te gëmoon lool rek moo taxoon waaye li nga xamee ne euh, bokk na ci enseignement yi ni jàng ci soxna si ku séenée noonu la lan mooy séeneen mooy ku amoon ambition la ko amoon ambition la jàpp na ne fu góor mën a àgg rek jigéen war na faa mën a àgg te bisam bii firnde la ci bisam bii ñëpp ko bëgg góor ñëpp ko bëgg waaye moom la ko suñ boroom jagleel hmm? moom la ko suñ borom jagleel ci pësteefam ak bëggam lu baax kon euh, ambition itam war nañ koo jànge ci soxna si nit ki euh, pas-pas war na koo àgg fu mu bëgg a àgg rek ndax bis bi nu mu commencé ñaari ganaar ana la àgg kenn xamu ko hmm? leen fi leen fi uh, at mu jot ginaar yi ni raay rek dana ëpp ñaari junni ginaar waxuma la nag yi ak gileem yi hmm? kon loolu uh, day wane ne uh, pas-pas rek mu am solo nit ki mën naa tàmbali dara mu tuuti waaye bu ci amee pas-pas loolu mën naa dem ba kenn du xam fa mu te alxuraan itam mi ñi wane ne góor ak jigéen moom euh, ñoo yem ci suñ borom suñ borom li muy xool mooy pëseef ak gëm yàlla innal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat wal qaanitiin wal qaanitaat ba aaya ba jeex waaye li mujj li ñuy li ñuy lu ñuy tëje rek da nga xamee ne war nañ koo jànge ci soxna si mooy euh, daf doon euh, dox ngir dajale jullit ñi ngir ñi nekk benn euh, ndax euh, ku ne xam na ne euh, loolu farata la bennoo nekk benn farata la suñ boroom nee na waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu waskuru niamatullahi aleykum id kuntum aadaan fa asbaxtum bi niamatihi ixwaana nee na ngoy ci buumu yàlla gi te mooy lislaam mooy alquran te bu leen taqalikoo na ngeen nekk benn nee nag ngeen fàttaliku xéewal gi nga xamee ne moom laa leen xéewale ana lan mooy xéewal ga mooy dafa boole dafa boole jullit ñi ñi bëggante nekk benn kon euh, loolu soxna si li taxoon mu woote bis bi mooy delloo si loolu delloo si fexe ba jullit ñi euh, nin bokkee pas-pas euh, ànd di ko jaamoo yàlla waaye itam bëggante ndax loolu euh, mooy tax sunu euh, diine mat waaw sunu diine mat laa yuhibbu euh, laa yu'minu ahadukum xataa yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul lim bëggal boppam def ko bëggal moroomam waaw kon daal Euh, ñu ngi jéggalu ci guddal gi waaye yooyu ay enseignement yoo xamee ne war nañ koo jàngat ci dunduk soxna si euh, ndax moom royukaay la woon euh, royukaay la woon enseignement yi nga xamee ne lislaam daf ko daan jàngale soxna si dañ ko daan gis ci dunduk soxna si mu koy jëfe kon loolu moo tax dana war a fàttaliku ay jaar jaaram fàttaliku Euh, ak dundam ngir man cee jariño waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nag bis bi ñu àgg ci ak jàmm te daje ceeg ngërëmul Serigne Touba te fekk ko ay déew ñu bare bare suñu borom yàggal fi suñu kilifa yi euh, te ka ca jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha Cheikh Mouhamadul Mahfouz ak képp koo xam ne yaa ngi ci toorub lislaam euh, ñu ngi ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah fa tabaarakallaahu sëñ maam Cheikh euh, waxtaan wi am na solo trop enseignement yi mëntoon a ñàkk ndaxte da cee souligner ay points yu am solo muy que ne soxna si ba mu koy commencé li mu koy bëgg bëgg bëgg bëgg da koo teg ci ndigal ndaxte ndigal mooy tax mooy charte bii tax ñu nangu jëf ji te jëf ji boo ko defee te nanguwuñ ko kat amul njëriñ kon euh, loolu liñ ci mën a jàngate ci bépp murit mooy que ne wër ta def dara te amul ndigalu kilifaam loolu lu am am solo la surtout jamono ji nag kon loolu lu jara bàyyi xel la ñaareel bi mooy ko amoon himma la maanaam ko amoon ambition la ndax ne dama ko commencé ci ñaari ganaar ak fii mu toll nii maanaam la lay maanaam ni nga ci mën a jàngate rek mooy def na ca yitte def na ca temps def na ca yittem def na ca alalam def na ca léppam te loolu lu am am solo la ndaxte nit ki dafa war a am ambition l'islam sax day soññe ngir nga am himma ju rëy himma ju kawe ngir mën a taxawal dara te lii lu ko mën a taxawal kat xam nga ne soxna si lu euh, lu am am solo lay doon ñaareel mooy ku bëggoon sëriñam la. bëgg sa tamit loolu lu am am solo ndaxte bëgg suñu borom moom bu ñu digal waaye bëgg sa sëriñ tamit lu lay àggale la ndaxte comme ni nga ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñu ko fi te sëriñ Tuubaa da caa bokk ci ñu ko wuutu fii comme boo bëggee yàlla bëgg yonent bi war bëgg sëriñ bi. loolu lu am am solo la ñaareel bi mooy ku doon dajale nit ñi la. te loolu lu ama am solo la te lislaam da cee soññee mooy tawxiidu sufuful muslimina maanaam fexe ba ne ndaxte ndaxte euh, guddig leelatul xadar ak guddig euh, leelatul xadar ni muy wooyee mbokk ñëpp ñu daje rek loolu rek yiw la loolu rek nga boole ca nag euh, taral leen ñu waxtaanee ca lislaam dundal guddi gi loolu lu am am solo la kon mbokk yi yéen a ngi doon suivre émission yi nga xam ne nii ñu ngi koy def di ko lay taayale guddig leelatul xadar mu ngi amee ci commission bi te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jiite ko waaye ci ndigalug sëriñ Modou Mahfous Mbacké te ñu àndoon ceeg ci maam Cheikh Mbacké moom sëriñ Modou Mahfous kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaan suñu borom tawféex ba keroog ñuy àgg ci guddi ga suñu borom may ñu euh, tawféex ak kattan ak wér yaram ñu dundal ko roy ci soxna si na mu ko daa taxawale ñaan suñu borom tamit mu defal ñu ci tawféex na ko nam ci defalee woon soxna si tawféex suñu borom mën na ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ma sant yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla ma sant yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun wa baadu maa ngi taalifal maymuuna mañ naa saxiira waaye mag la moona moo tax ba mboolem mag ña jox ko worma mu boole mbóoti taaw ya ak yoy caat ya donn ca mbóot ya nekk tey baag mbir ya jàng nga jàngle nga wooteeg màggal fii laylatil xadri yaa koy sellal weer wi nga wootee gën ci mboolem weer yi guddi ga moo faw xa mboolem guddi yi foo tudde laylatul xadar ci réew mi xel yépp dem ca na may fii saw mi